ne ne tey data journaliste lañ waroon a dugal astafurla animatrice boo xam ne télé bu mag lay liggéeyee tey tasoon naa réew mi tasoon naa Sénégal mais ay ndaanaan ñoom ak ay kilifa ak ñi ma rus xam nañ seen tur ma bàyyi mu sedd bañ yàq liggéeyam mais am nga sens santal yàlla ñi nekkoon ci appel bi ak ñi nga xamante si nii ñoom laa waxal xam nga ma xam yow mi may seetaan beneen kaa bi ni ñëw tey mooy xale bu jigéen bii di wuyoo ci turu sa Seck ñu gën koo xam ci tasaabi bi moom xam nga lan la def kopp komborong xam ngeen ko mooy yu vert yooyu kopp komborong nan lay duggee ci lëf te ñu koy lekk bàyyi naa lekk lu vert loolu lu gudd loolu mel ne koy fas bàyyi naa ko lekk nan la xajee ci data di bës mel ne jaaykatu waaye yow noonoo waay live ma dëgg seen day yéen ñëpp tey ba ci kanam